cela alors euh, dafa am ñaari mbir yu war a leer pour mu mën leen cee duggal à mhm. bi njëkk mooy jégal naa leen mhm. que donc lu may wax mhm. jëmul ci wut lu metti ci nit wala wut a ci nit wala wut ku ma fayu loolu laa bëgg mu njëkk leer maintenant pour la vérité historique. ce mhm. may je ca loolu c'est bien deuxième chose bi qui jëm ci li li yaakaar la qui ko. Mhm. na ñoo dañ defoon ni biñu joggé <coughs> bugguma mhm. cassette bi jamono bobu di Ablaye abal ñu. dañ defoon ni c'était lié à ça. ça n'avait rien à voir l'autre euh maître Babacar Sey la ñu en 1993. mu metti ñep mu metti Il ñi ëpp. ndax def ñu wax né metti na mm-hmm. def lu mm-hmm. euh, un serviteur de l'État di État bi mission ñu man ma bokk ci ñi nga xam ne dañoo mës a jóg di gëstu ci loolu ci lu ngeen xamul mu jaral ma dem kaso ma teggi pexe pour dem kaso man ngir mën a dëkk ak ñooñu ko rey mën naa ne ñooñu ko rey ndax ñoom la ñu condamné woon euh, am na yu ma wax ñu jàpp ma ma nekk rëbës mais ñoom ña nga campénal ba ma nekkee rëbës yàlla dogal na ma sonal euh, euh, régisseur bi lool sonal bi du sonalu def lu luñ may tere mooy lu luñ ma def loo ma bañ te duma def lu ñuy tere su ma régisseur wooyee ma bañ su ma garde bi gën a ndaw wooyee ma dem sikkar dañ ko fa daan tere ku sikkar yóbbu la chambre neuf ak dix ñu woo ma wax ma ko ma teg samay pexe ba ñu kasu rajab parce que boobu xamuñu woon ne ñoom kasu ràpp rek la ñu xamoon xamuñu woon kasu rajab mm-hmm. ma def samay pexe damay bañ guddal mm-hmm. ba ñu sikkar fa lañ jaaree di sikkar di fa am te kenn du la yóbbu sàmm na fekk tiis jour bi ñu ma àttee ma dese un mois man suis demandé de transférer ma campagne ma xam régisseur day Je dama ko demandé dix heures et midi que ma campagne. Je xam nga kon la suis me mais man ak Clédor sen Papa Ibrahima ak euh, sama xarit mhm. vraiment je nga xam euh, manam bal bi nga xamné mom mom mom mo moo jam euh, maître Babacar sey ñep xamnañ ni Assane Diop mom nanguna ni moko tiré ñu amone ci biir prison bi relation bu baax ma wax la ni c'est la petite histoire veille bi may genn prison man ndax ma ngi genn le 13 avril 99 après 6 mois manam cere bi ma réré Clédor Sène a ko togg mm-hmm. waaw c'est pour waaw pour wax la ni mm-hmm. kon am na liggéey boo xam def na bien <coughs> te askan yooyu ma ko jaraloon mm-hmm. bi ñu demee ba jëmmi jamono ma yeggalee samay enquête ci biti ñoom bi ñu demee ba xam ni dama ci nar a wax te am naa sañ-sañ ak fitu wax ci laa jot ay xibaar ci ñu jege woon nguur gi woolu ma ne ma santaane nañu ñu dagg sa làmmiñ nangami nit a ko fekkee li may wax ni euh, kon yow xam nga ne dañ la dara dina xew. non informé nañ ma man. vous saviez que. d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs plus tard doyen des juges d'instruction devant mes avocats doyen des juridictions mon nek tay ji ki mm-hmm. interpellé mais je ne yow ak liñ avertir comment se fait-il que jëluloo ay disposition pour aar madame la doyenne des juges quand le président de la république en personne décide de vous assassiner quelle disposition y a-t-il à prendre. donc vous voulez dire que c'est le président qui a décidé. de vous assassiner..? non je l'ai dit publiquement donc quelle disposition y a-t-il à prendre. Maniko, président décidé assassiné la kenn kessé la alors donc le plus important euh, moy jaar-jaaru mbir mi mm-hmm. ndax du kenn mo meuna taxaw ne man mako protéger mm-hmm. c'est une histoire bo xamné bi euh, xeexaluma ci sama bopp puisque man génn naa ci mais li tax ma xeex ci c'est pour mu bañ a dal keneen mais ba ma ciy xeex ñi nga xam ne bi ak kii bi di doog a am événement bi doog a am ñoom ñoo jógoon di def manifestation pendant que man maa ngi woon hôpital ñooñu doon def manifestation contre l'impunité di wax mais bi ñu jëlee le dossier classé ko sans suite da nga dégg ko yëngu pour wax la ni aussi dans notre pays souvent dañuy réagir par émotion. dëgg on a la. dara ñu réagir mais ba ñu décider de dañuy voter loi Ezzan di def loi d'amnistie qui enterrait les crimes et délits yi nga xam ne à caractère politique yi amoon ci 20 ans yuy jiitu nga xamné ne maître Sey da ciy dugg affaire Talla Sylla dugg ci kéro kan mo manifester kan donc su lu mel noonu amé ñun chaque année à l'époque nous organiser le 5 octobre une activité pour commémorer loolu dénoncer l'impunité dama vous wax quand le silence de celui qui doit dénoncer est sinon complice du moins responsable des gestes criminels l'inertie de celui qui doit sanctionner est au minimum un encouragement. absolument C'est ce dëgg. mooy dëgg loolu mooy que te loolu nag que koy mm-hmm. mu mel ne combat personnel la c'est-à-dire ça doit être combat qui xam ne képp ku ci réew bien sûr Si mu avez ci yoon da nga cay dugal sa loxo. mu le combat de tout un peuple. pour la justice.